bismillaahi rahmaani rahim mbokk yi mbokk jullit yi mbokk senegaal ñu ngi leen di siyaare bu baaxat bi ñëwati tey nga xam ne ne ñépp ñu ngi doon laaj vidéo salaatu ala nabi di sallallahu ala muhammad nag ndax salaatu ala nabi ma senegaal gépp dañoo war a maase ci salaatu ala nabi ndax salaatu alal nabi ci jamono jii ñu ne salaatu alal nabi moo ci man dara ci jamono jii ñu nekk salaatu alal nabi la nit ki war a taxool ndax salaatu alal nabi benn képp ku koy def sunu boroom daf lay jéggal say bàkkaar képp ku koy def loo dugg mu sotti képp ku koy def nit ñi dañ lay bëgg ku la bañ dim naa ku la bañ ku ne am naa féq lay doon waaye nag bu ni wax tey monn ban salaatu mooy monn entier ban salaatu moo ëpp doole ban salaatu moo gën a gàtt ban salaatu salaatu gan nga xam ne ne xale bi doo ko jàng wax sax mën na salaatu googu mooy mooy gan salaatu gi xam ne ne fukki xuróof la ak ñeent salaatu gi xam ne ne doole gi mu am maanaam ci biir salaatu yi doo ndax boo xoolee salaatu gi am allahu yàlla muy salaatu gu gàtt muy sallallahu ala muhammad boo seetee ñu nongul la ko boo seetut ñu nongul la ko mooy salaatu ala nabi kon suñ mbokk yi mbokk àdduna mbokk senegaal salaatu ala nabi kuy déglu sama vidéo na nga partager vidéo bi ndax ñépp jariñu ci salaatu ala nabi muy sallallahu ala muhammad ndax képp ku koy liggéey wër wërsëg moom xaalis rek rek rek danga koy am moom foo tollu dangay am xaalis foo toll doo jeexal xaalis lu la waay di mën a wax jàppa si lii jàppa si lii bu la jàppaloo si salaatu ala nabi muy sallallahu alayhi muhammad fonk ko te xam na ne lépp looy wët ut àdduna ak si biiram mi ngi si biir salaatu ala nabi muy sallallahu alayhi muhammad képp koo xam ne ne saa boo xëyee nga def ko 368 doo ñàkk xaalis képp koo xam ne nga koy def deux cent trente sunu boroom loo wax sunu boroom nongul la ko loo ñaan sunu boroom nongul la ko sa ginim dafay am barke mooy kun fa yakun deux cent trente six nekkal rek mu nekk moo tax salaatu ala bi ku koy def da ngay taxoog sunu boroom jege yeneent bi foo nekk yenente bi daf lay daf lay fekk si ji ku koy sikkar nekk si néegu sëyam di sëy doo am problème doo am gàcca nit du man ci yow dara te ku la bañ ku ne naafiq lay doon te boo ko saxalee képp ku la bañoon dana tornewaat jublu la ndax leer gi mu gis ci yow ndax salaatu ala bi day defar xol salaatu ala bi day tax day tax ngay julli salaatu ala bi day tax boo nekkoon si lu bon gën a jubluwaat ci lu baax waaye salaatu gi moom moo koy def muy ban salaatu xanaa wax ji ma fi wax yépp boo leen ko déggee ngeen xam ne ne salaatu ala nabi rekk moo ko man muy sallallahu ala muhammad noo ko waxee ñu bindal la tiyaaba noo ko waxee ñu nongul la ko tey jii boo noon nelaw sax di ko wax ñu lay bindal tiyaaba boo àndeek nit waxtaan bay dem kenn ku ne nuyoo wax sallallahu ala muhammad jéggal leen seeni bàkkaar te wallahi jamono jii ñu nekk ci réew mi bàkkaar moo bàkkaar bu taq ci doomu aadama bi moo tax lu mu lijjanti du sotti lu mu yaakaar muy tas di waxaat ndaw ñi mag ñi jigéen ñi meeri na ñëpp sax ci sallallahu ala muhammad képp kuy seetaan sama vidéo na nga def sallallahu ala muhammad yàlla jégal la say bàkkaar gépp waaye képp ki xam ne ne jot nga audio bi nanga ko partagé keneen man see jariñu keneen mën a wax sallallahu alayhi muhammad ndax yenent bi rek moo fi ne yenent bi rek moo fi ne kon nag di leen wax ngeen ak gën a abonné ci chaîne bi te di partager vidéo yi te di ko sem ci barki yenent bi sallallahu alayhi muhammad sallallahu alayhi